Bakar Thioye Ba Moussa Taye ak xalifa Sall loolu du ma ko mettre en doute Khalifa bu gisee woon ak Macky Sall dina ko partager au moins. attention Golo non non non. attention parce que non attention. Aliou Aliou là je ne parle pas à Thioye Ba. non non oui non faut pas Aliou Aliou excuse-moi exactement Aliou téléphone bi nga fi. téléphone li mu la wax. le téléphone par personne interposée. non je remets pas en cause. l'histoire de la communication par, par la personne, personne interposée loolu je ne le remets pas dama ne gise bi laa wax. gise bi mais loolu waxtaan la bu sa bu téléphone c'est une conversation non xam nga non mais xam nga moi je te connais de bonne foi très ah. souvent. quant hmm. à cohérence fii ak feneen yàlla moo tax may wax dama la koy hmm. seedeel. merci moo tax ma je veux que tu prennes les les les les gants. c'est-à-dire ñoom li ñuy def réellement am na yoo xamante ni doo ko xam. mais Khalifa ah, n'est pas ce genre de responsable. je ne dis pas que c'est Khalifa ou c'est Babacar ou c'est Samba. mais c'est tous les hommes d'État ils sont dans ces logiques non xam nga Papis di la gën a ko mu solo mooy li nga wax ni mën naa nekk mais ñun suñuy rapport amul nëbbu c'est ça ah non loolu amul ci politique non ñun li nga wax ne amul ci politique. mais waa kër Idrissa Seck li nga wax la ñu waxoon de. waa kër Idrissa am na ñoo xam ne jege ak Idrissa Seck. waaw. mais Idrissa n'est pas Khalifa comparaison n'est pas raison. na nañu waxtaan nañu waxtaan nañu waxtaan nañu waxtaan. li mu wax nii. waaw Ba. loolu amul ci politique. c'est-à-dire. maanaam jege jege ba nga xam ne lépp lañ la war a loolu amul ci politique. mais justement politique sëñ bi nañ la. ku nekk li ngay seq ak moom ak li ngay dox ak moom lépp passerelle la. tey euh, kenn mënu wax lépp mais en tout ma la bëgg a wax mooy déedéet li ma la dafa naan man li ma bëgg a wax te mu gàtt mooy. waaw te mu gàtt waaw. Khalifa ak lu ngeen mën a jege jege jege. du ngeen mën a jege-jege il peut arriver que mu poser en politique acte yoo xam ne doo ko xam yow parce que moment bi mu koy def du moment bu baax pour keneen xam ko loolu aussi dafay répondre ci logique politique waa mais loolu mu amee mu amee kay moo jox la benn exemple très rapidement barki moo njaay mhm. ba Khalifa Ababacar Sall di dalal Sonko waaw ci biir bureau waaw man yëguma ko rencontre bi fu mu amee nga ni bureau Khalifa Sall la ok man yëguma ko mais ba mu ca noppee ba mu ca noppee ca daf ñu ko yëgal ñu ko yëguloon daf leen ko yëgal c'est-à-dire que même bu dee am na lu mu def te yëgu ko balaa mu koy def bu ko defee pare dina ma dina ma wax def na ko te lii moo tax mu def voilà là c'est normal dafa bëggoon nga xam aussi biir euh, <laughs> Birima de laal na doon woowee <laughs> moom man en fait euh, avant avant ñuy commencer man man man man dama mel ni ça so what so what oui oui c'est-à-dire merci est que nekku di ñu tëj Macky Sall c'est le président de la République su ko Khalifa Sall gisee à minuit ñu wax li ñuy wax te kenn yëgu ko et après. Ouais. mais c'est tout à fait normal. merci beaucoup wala Idrissa Seck gis ko. xam nga nit ñi aussi bu ñu leen def ay malaaka nit ñi ay nit lañu. non boobu waxuñu mais man bu ñëpp wax damay dégg. waaw non non te ma waxee ñaari a débat gan du bi yow bi ngay wax dama la déglu. non xam nga fan lay waxee ko xam nga xam nga fan lay waxee. waaw xam nga lan fan lay waxee. quel que soit mën nga bañ a d'accord li mais dimbali ma rek bàyyi ma wax. waaw non bul ma dagg. bon buuba aussi yaa ko fi tàmm wax. sa jàkkaarloo xam nga ci yow laa déggee. Ah, affaire kon kon na wax man ma eggale. non waxu ma koy ñaan rek mu yow parce que bàyyi ma wax bàyyi ma wax. non non je je t'en prie. non non non ne tombe pas dans son piège. ne tombe pas dans son piège. non non c'est laisse-le continuer après il va dire. xam naa fu mais non xam nga bu ko eggalee bàyyi ko mu waxal ko boppam. xam nga lan mooy problème bi. bàyyi ko mu waxal ko boppam yow yow en dix ans ne tombe pas dans son piège moom mooy non non xam nga la mooy problème. Ah. mooy que déjà yow yow sa bopp yow yaa ngi yaa ngi yow mi war a

affaire rek laa bëgg a wax non non non benn affaire rek laa bëgg a <laughs> c'est que jëmmi président la république parce que Macky Sall dafa am ñaar yu ci nekk. xam nga xam nga lan mooy xam nga xam nga. non dafa naan non la parole ñi toog ku nekk am nga loo mën a wax. nañu bàyyi ñi war a wax man li may wax soxla soxlawuma yirim nii deer ni kenn mu mu firndeel ma ko. Mm. mun naa ko firndeel sama bopp waxal ko sama bopp. c'est pour ça que je dis bu leen temps nit ñaa ngi seet xam naa ko tu prends ta part euh, voilà jëlal sa part de parole jëlal. loo leen koy xeexee laissez le parler. mais Malal xanaa tey. bu leen sa Malal ma ne xanaa tey mais xam nga li ngeen wax li ngeen di fàtte mooy li ngeen di fàtte mooy macha allah nit yaa ngi ñuy seetaan. mais évidemment les gens ñuy seetaan. Yérim comme que ko je vous en prie bàyyi leen ko mu jël tour de parole on avance mais ku fi waxati nga dagg ko. mais non mais xoolal xam nga xam nga lan nee na waxatul. mais non non non non Goloko s'il te plaît déedéet. Ah, non non non c'est son tour de parole. il a dit il a dit c'est son tour de parole. les gars les gars. pas déconner soit soit soit on se respecte. mais le respect c'est ça. tu as dit non je parle plus. mais mais mais non mais il faut nga il faut nga déglu ma. waaw ah. xam nga ne soit.

mais non mais moi ça me manque de respect. léegi dañuy dégluwoon tey dinañ dégluwoon tey. soit tu parles ou tu renonces. mais c'est pas à toi de parler qui ñaar. waaw léegi nañu dépassé. respecté nit ñi dafa am ñaar. de. Mm. gan laa gan du yeewu. waaw gan du yeewu béy. golo ko olof la ñuy laaj golo ko tubaab lay laaj. non non non non non non non non non on va penser en déglu na ñëpp. na ko ñëpp déglu. mais c'est li nga atte attoo yoon nit ki booy atte da nga atte yoon dañ ko jox parole mu mer mu ne waxatuma dañ ko dagg yéen jël parole di wax la mais bu ko fa yéen mais dañ ko il faut accepter xam nga la di la vérité la si tu ne vois pas si tu ne vois pas reste pas ni bi jolool yu teddi